booy bu ndaw la vieux caane ñëpp xam nañ ko ca euh, Richard tow vieux caane mi ngi nii booy bi vieux caane moo wan leen ko <laughs> te moom moom dafa maîtriser nag affaire réseaux sociaux yi def ko maîtriser moom dafa bëgg a doon président nee dina joxe candidature am quoi léegi dafa def dafa def ay sondage ci internet bi xool 83 pour cent la am Amadou Ba 17 pour cent ci internet bi la nag mi ngi nii xool leen booy bi booy Richard Toll la vieux Thiané sondage moom ak Amadou Ba ci internet bi moom mi ngi mi ngi xool leen sondage bi Amadou Ba Sénégal yëpp laa la wax de Benno Bokk Yaakaar 17 pour Amadou Ba 17 pour cent Benno Bokk Yaakaar booy vieux Thiané mu ngi am 83 pour cent ci internet bi. mi ngi nii ci ci net bi la nekk sondage mu defal ko dem mën mu defal sondage mu defaat sondage xoolal nee naa ko waaj fukki duñ ko am mu defal sondage Mame Boye Diao ak Amadou Ba xoolal Mame Boye Diao ak Amadou Ba sondage ci internet bi de gars yi kii fii sondage bi Amadou Ba am 31 pour cent Mame Boye Diao am 69 pour cent ma ne ko maay booy mu ne ma waaw ma ko Amadou Ba ku mu ku mu kum gañe golo nga kum ma ko booy kum gañe rek golo nga loolu moo tax booy bi ne ma noo grand dara du tere damay dem présidentiel présidentiel bi damay dem làmb sama sens parce que fu ne nii lépp ne tulleeg mal la booy bi leen day dem de day ñëw de vieux caare day ñëw de booy bi léegi nag foog ngeen xam tamit <laughs> opération rek bu dëmm noonu naa leen dinaa leen gën a ñëwal ci Amadou Ba ci détournement yeeg falsification yeeg